karawaan bu am solo la amal moom responsable politique bi ci ngoonuk alxamis di ñetteelub génnam ci gox yu sori lool ci biir Touba dale ko ci minatul axla askan wa dalal ko naka noonu sëriñ daara ya ba ci IGP bu minatul axla waaye sëriñ Muntaxa Jóob di kilifa gox ga dalal ko tey xamle ne ñépp ànd nanook àll silla ndax jëf ji muy def ci askan wi rawatina ci sancaan yi te toogoo ba campagne rek nga koy soog a def lu yàgg la moo tax xam nañu la bu baax kon képp koo xam ne jóg nga ngir moom lam la ñu war ca diggante suñ diggante ak moom dañu ko dox te la ñu war suñ diggante ak kam ñu booleel dañu ko dox ndax moom suñu kilifa la te mate na ko. bu boobaa bu ñëwee danañ xam ne saam ñi fi nekk yeewu nañu nite nañ ndax nelaw amatut ñi doon baasu jàngala ñi doon nelaw ñoo daanu ci ñi doon jayaxu ñëpp yeewu. kon yaakaar naa ne bàyyi àlla daal ñun doy nga ñu tout fépp doy nga ñu fa. keroog bi ñu dem ci suñu àll mii di ko siyaare ji ñun ñoo ànd loolu moo sabam ndaje bi te daara moom dañu ne euh, tënk bi ci gàttal rek mooy luy yittee gox bi rek ñun suñu yitte la waaw lépp loo xam ne gox bi buñ ko amee muy seen njariñ rek ñun loolu moom suñ suñ daara yi seen yitte la. yow moom li ngay def lépp ñu ngi koy xam di ko yëg ca loola jàpp nañ ko. ñi ñi fi dëkk ñëpp tamit xam nañ ko jàpp nañ ko kon nag ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la ndam ci li ngay wut lépp barke Sëriñ Tuubaa kon nag ñi ngi leen yéen nit ñi na ngeen conscientiser yeewu xam ni nit ku ne ke ko ëppal njariñ eh, moo gën ca moom waaw ke ko ñu ëppal njariñ waaw kon nag na ngeen xool seeni bët ci xam ni Sëriñ Aliou mii eh, ñun de jàpp nañ ko ak suñ fukki loxo te bëgg nañ ñëpp jàpp ko bokkaatul mubaarak gépp jàpp ko waaw kon loolu lañ doon xamle di ko ñaanal rek suñu boroom defal ko tawféex ak ndam. Alla Sylla di xamle ni fay bor bi ci digganteem ak président Macky Sall moo ko jaral bañ a nelaw. ngir dem fépp ci tuuba ngir Macky Sall am fa ndam. di dellu sant yàlla bu baax biñ jógee tey jii ñëw fii ci Boukhatoul Moubarak di ñëw di seeti sëñ Mountakha Diop mii. ak lenn ci sëriñi daara yi nga xam ne dañoo yor seeni dongo di jàngale am tamit luñ ñu tawatoon ñu ne woon tamit dinañ ñëw ci koñ bi xoolaale koñ bi nit ku nga xam ne xëy na lam lay wax wér na la ni amu cee caaxaan waaye yow it koy wax dangay fexe ba mu wër la ni ay caaxaan taxu laa jóg bu loolu jàllee dafa am lu jublu comme ni ko Moustapha waxee rek loolu ñun bëgg nañ ku ñu ca jàppale li may wax nit ñi nag toujours mooy nun dañoo bëgg nag tuuti sagal Macky Sall ci Touba ndax jamono yu ne muy falu te waa Touba ca bokk ñun loolu dañoo bëgg tey ren dinaa ci man dox dinaa ci wax ñi may dem di wax ak a joxe damay bëgg mu ndam li amee li di seen bëgg seeni bëgg-bëgg ñu gën koo mën a tawat puukare daal taxu ñoo jóg yaakaar moo ñu tax a jóg nuy ñaan yàlla bu yaakaar tas loolu daal mooy sunu suñuy tànk jigéen ñi nag man liñ ma wax dégg naa ko sëriñ daara liñ wax dégg naa ko comme niñ ko waxee rek xam naa ki doon samp poto yi moo xaw a yeex am fu mu génnoon dem wuti ko ak seegut ndax poto yi ñu jëkkoon a diggee wax nañ ni dana ñëw fa suñu yéene daal di diggee lu mënut jigéen ñi nga xam ne nag dañoo yor seen i caabi commencé di liggéey ñun dañ leen di fexe ba jox leen fanweeri junni ñu def ko ci seen bopp yokk yokk ko ci liñ doon def waaye liin leen di ñaanit ñoomit bu bis baa nañ am fulla am fayda li ñu bëgg nañ ñu ci jàppale liñ wax rek la ñuy def ñoo ngi dem waaye ñoo ngi ñëw ñun loolu daal lañ leen di ñaan yaakaar nag moo ñu fi indi sëriñi daara it nit moom boo demee di diggéen da ngay jéem dara dañuy jox ñee fanweer ñii ñu jox leen ñaar fukk ñoom ñu tàmbali def seen bopp rek loolu daal lañ ni woon danañ ko tàmbale parce que wëllëreet boo koy sos danga koy sos ci dara maa ngi sant bu baax maa ngi gërëm wéyal karawaanam bi ci biir jannatul maxwa mouvement Sénégal nay leer dalal ko sa jannatul maxwa ñoom ñuy xam ne ni guleet ab politicien teg fi tànkam ku dut àll si Sylla donte wax nañ seen ay jafe-jafe waaye ñuy xamle ne Baye Alla Sylla doy na leen ñoom ndaw yi lee dogu nañ ci ànd ak président Macky Sall. dañoo toog waxtaan ak yow yow it la wax dégg nañ ko bu baax baax ndax fi nga teg sa njaboot ci yoon woowu nga leen teg ci yoon woowu nga te fas yéenoo yow ànd ak yow ba mu jeex foo ñu jëwee ñu jëm foo ñu jëwee ñu jëm fa ci kat ni yàlla suñu borom premier tour ñu ko président Macky Sall mu dogal ci fas ñu aju ñun ñëpp. fekk na man yàgg naa yëngu si politique mais euh, xëy na peut-être euh, remarquable lu ma parce que wor yi ak nax yi dafa ëpp te dama dëkk ci sama koñ di xale bu ndaw dëkk ki mag ñu jox ma cër dëkk ki gone ñu jox ma cër. donc man du ma fi indi koo xamante nii à chaque fois dafay wax loo xam ne bu ëllëgee du ko def wala mu ñuy fooxal di ñu jox ay bale ndax xam nañ ne Touba maanaam lu sedd seen xol dafa yomb. bëgg na ñu jàppale leen ngeen jàppale ñu ba yàlla te bàyyi xel gone yi bàyyi xel mag ñi koñ bi nag benn responsable benn benn benn parti bu ko moomagul amagu fi. kon nag buñ sampee Macky Sall ne Macky Sall lañ bëgg kon nag dëgëral leen ñu mën koo gën a jàppale li muy liggéey gën a rafet wasalaam. kenn mënta tabax am réew. te jiitaloo ci ndaw yi te ku leen xool xam ne ñu am jom ngeen ñu bëgg ñu bëgg ku leen jàppale ngeen donc euh, li ngeen fi wax lépp am na solo te danañ ci tenir en compte incha allah di leen wax ne rek dañoo bëgg incha allah bu la 24 février jotee ñu fal président Macky Sall dès le premier te ni ma leen gisee yéen du ngeen nax kenn parce que ñun ak yéen benn lañ ñoo bokk Touba ñoo bokk Seexul Xadim donc nous allons nous ni mobiliser InshaAllah. le 24 février 18h nous ñu gagné je vous remercie merci beaucoup. moo na woon fa woon yëkkati somb takk lool teg ko ci seen loxo waaye fasanteeg ñoom kóllëre donte du ab sonam waaye moom lumu fas yéene mooy du xëy suba ba ngoon te dugalul ku mësta ànd ak Macky Sall ci parti bii di APR yéen waa Janatu Mahwa ñun dañoo mooy ñoom ñëw wax nañ ma liñ ma wax biñ ma wax naa leen li ma yaakaar ne moo ca gën ngeen ñëw ñu ànd fas yéene falaat Macky Sall premier tour. waaw waaw. kese noxut yi bay jëngatu ngeen ñun ñu duñu ñooñu fu dem fu ne dañuy leen di bàyyil loo xam ne dina leen tënk ci dara dañ ñoo dig nag joxaguñ ñu waaye ñun dañ leen di jox ñun ci liñ yor. daal di dem nag dem si fas yéene balaa bee jeex ngeen gisaat ma wala seeni ko ne ngeen boole na li ñu di ko xam. ba bu ñu yeggee li ngeen mën a wote 100 pour cent ñun dañ fee soxla 100 pour cent duñ ci déglu kenn nag. diw ne jànnatu wala diw ne wuti. kon nag bugguma fee digee loolu boo leen romb ci mbedd mi ñu naan paa bee de moo ñu diggoon te joxuñu man li ma leen dig dama leen koy jox bala maa dem. fanweeri junni ngeen tàmbalee waaye nag na ngeen góorgóorlu bu ca bis baaj yéen gone yi na ngeen dem taxaw irdi yi fexe ba fexe ba kenn pour mën saan du fi bëgg a gañe jànn te yéen laa ko bëgg a àndal kon noonu mu wëyal caravanam bi ci biir corniche bi ngir xamle bilan Macky Sall waaye njenne kenn demul ñu des askan wu takku dalal ko fa fas yéene topp ci ginnaawam ngir falaatu président makis Sall te ñoom ñu fas yéene cee bay seen waar. ndongay bu soobee yàlla bëgg nañ bu bis baax ñun ñëpp ñu ànd ak yow ndax ko sànnil Macky Sall waaw waaw suñu carte d'identité yaa ngi nii ah, bëgg nañoo ànd ak yow parce que dañoo ànd ak yow rek comme nii rek comme comme mumbaay bi nii topp campagne yi nii rek naan bàyyi nangam nangam nii nii ne ay mbàkk mbàkk doo ay mbàkk ñu wër waaye Macky Sall bu gañee 2019 bi te Touba bokku ci Touba Kalla sëñ Touba waaye nag oto lu mu xam-xam ma sama yaay neex ta dama bëgg su la 24 jotee ñu génn suñuy kër mobilisé wu ànd ak discipline ak tey ak réglé bañ a xeex dem sànni carte Touba Kalla Macky Sall Macky Sall am nam ci Touba mooy suñu avantage la di xamle am na leen te fas yéenewu leen a ñàkk ndax moom lu mu wax fas yéene na koo jëf yëkkati somb takku jébbal ko groupement yi ak ndaw yi gox ba bëgg ñoo sax àgg midi waaye dañoo bëgg képp ku nga xam ne daal fanaan sa carte te teel a dem rek wote dellu si sa kër toog jàpp sa jàmbur. sant dafa am ci ñun yaakaar yaakaaram jooju yàlla moom tas dañ ko waxoon ni ko ñun de dinañ la fay bor ba nga xam ne fay nañ la bëgg nañ Touba nag fu fi nit nekk te nekk ak bëgg am yéene jàppale Macky Sall ñun fas nañ yéene taxaw fa. Madiana nag lañ ñu sosee naam waaye nag dañoo bëgg rek def lan waxoon nekk milieu de terrain fépp fu nga xam ne militant bu bëgg a wane nekk na fa ñun fas nañoo doxantu suñu tànk ba yegg fa loolu laa lañ amoon ci message di leen ko jox. di sant Baye Fall bu baax nag di ko dellu rek di sant fas nañ yéene nag yëkkati ci liñ suñu alal fii sax du suñu zone zone bu baax xëy na Touba Mosquée la waaye dinañ yëkkati 150 mille toog ci loxoy Baye Fall. waaye bi une heure du di jot. mu ngi jeexal karawaanam bi ca daaru minam ci bis bu ñu ko duppe woon te ñi amal ko kuréelu wàccaayu mbale màggaluk tuuba muy kuréel gu mag lool ci biir Touba amuloon bisub sant sëriñ Touba ñuy xamle ne seen digganteeg Alla Sylla lu yàgg la maanaam dañu am luñ bëgg leeral tuuti suñ digganteeg sañ Alla mii ndax dañoo bokk sëriñ bokk lépp yàlla boole nu ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii muy kuréelu waajal mbale màggal Tuubaa yaakaar naa ne biñ ko sosee ki ci njëkk a aw ñaqam moom mi bokk na ci jàpp ci lool nag tàyyiwut bàyyiwut ba suñ borom dogal mu yëngu ci politik waaye ñun bi ñuy ànd maak moom ma di ko soññ ci liggéey Sëñ Tuubaa mu ci tabalaw ñàkkam booba tàbbiwut ci politik waaye saa buñ soññee mbalem Tuubaa mi dina jël aw ñaxam tàbbal ko ci liggéey Sëñ Tuubaa bi wax na maag yéen ko bokk moom ma dikkee yoroon kàddu Baay Alla Sylla di xam ne ni moom Alla Sylla kët nitu daara la ku ko tudde bisu sant Serigne Touba juumuloo benn yoon waaye moom ma dikkee profité na ci occasion bi day fàttaliwaale askan wi élection présidentielle yi ay fan rek ñoo ci des te moom Alla Sylla ànd ak président Macky Sall fas yéene ko falaat ci premier tour yi waaye dëkk bu sell bii di Touba bay ci waaram mu leen di tàllal loxo ak i ñaan ci bisub sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul gannaaw mu xamal leen ne bëggoon naa ñëw lu jiitu lii waaye nag dafa am programme yu mu nekkee di ci yëngu te waxtu wa it dafa nekk dafa dafa jot muy lu mekk lu mel ni ki ne campagne électorale bii ñu nekk daf ciy yëngu ngir di jàppale nag président Macky sàll fii ci Touba ngir mu am deuxième mandat loolu it dafa wax ne képp kum ci bokkal gis-gis wala mu bokk ci ak yow bëgg-bëgg mi ngi la ciy tàllal loxo ngir jëmmi sëñ Touba. ndax dara ñuru ko ci loolu lu dul ngeen ànd falaat ko mu am premier tour ngir ñu àndaat ak moom mu liggéey li mu soxlaa àggale ci Touba loolu rek mooy yéene moom Serigne Alioune looloo tax mu ne woon loolu it na leen ko leeral ci jataay bii